merci beaucoup jërëjëf internet des Prod Media gannaaw bu ñu leen nuyoo comme ni ñu ko baaxoo di defee saa su nekk rek tey seen émission kaay toog dafa changé couleur dalal nag nit ba nga xamante ne kenn dootu ko présenté ci réseaux sociaux yi moo xam si TikTok la wala si YouTube bi wala fu mu mënti doon àdduna wërngal këpp xàmmee nañ ko mais laata ma koy présenté damay nuyu sama internet yi comme ni ma ko baaxoo di defee saa su nekk gannaaw bu ma nuyoo kilifa diine kilifa aada ñaanal leen waaye sàkku ci ñoom ñaan. Ah, suñu borom wéral seen i cër ñoo di seeni fan ñu yàgg ñoo gunge ci barke sangu-sang yi après nag ma def direction les hôpitaux seet sama mbokki malaat yi ñaanal leen suñu borom fëgg seen bopp dugg ci prison yi ñaanal leen suñu borom tegg leen natt yi ci barke sangu-sang yi ayca comme ni ma ko baaxoo di waxee saa su ne rek am connexion yomb na waaye xam fi nga koy def moo jafe sant yàlla alhamdulilah ba ngeen tànnee des Prod la chaîne leader la chaîne qui vous rassure tey nag ma daj ma ma ma toog nag ki nga xamante ni moom la ñuy wax bébé Diagne wala wala wala prince Fossette oplo mu ngi noonu <laughs> wala sax euh, euh, Mara bu la ci neex tànn sa bu la neex. maa ngi lay nuyu. Mathilde maa ngi lay fay. maa ngi nuyu Sénégal ah di leen remercier ci déplacement ak invitation bi di nuyu waa DS Prod aussi nga xamante ne Sénégal ñëpp ràññee nañu. Mhm. di leen wax voilà merci dalal daal. ay ca jërëjëf euh, toogaay bi nag tey comme ni ma koy waxee chaise bi jombul kenn ku nekk mën nga fee toog ndax nee naa leen jataayu teraanga la jataayu waxtaan waaye jataayu leeraay Bébé Diagne jamono yi ñu toll yow yaa nekk euh, ci toi euh, nuñ koy waxee tu es sur merci beaucoup tu es au yow la réew mi bëgg yow la àdduna jox bopp macha allah ci sa ay vidéo TikTok et tout Bébé Diagne naka la def ba imposer boppam sénégalais yi ak kan mooy Bébé waaw Mati Bébé Diagne nit la. Mhm. juddoo Sénégal. Mhm. fi. Mhm. màggee fi. voilà ñu gën ma ràññee si réseaux sociaux yi. peut-être euh, grâce peut ak sama métier bi ma doon def ak yenn fréquentation célébrité yi ma am. voilà peut-être nag peut-être li ñuy naan sama taar peut-être niñ ko nu ko nit ñi di waxee <laughs> xëy na peut-être vidéo yi. nee na sama taar moo ma gën a lancé vidéo yi may def. si réseaux sociaux yi. voilà di snabal artistes yi seen son affaire yi ñu apprécier ko voilà moom mu gën a lancé daal. wax mhm. na si li mu gën a lancé. accord euh, bébé euh, tey lan moo ko poussé mu mu mu topp showbiz bi il que euh, école nga nekkoon balaa ngay nekk ci showbiz bi. waaw jàng naa dem naa ba li ma dese woon pour ma def bac bëriwul woon ma dem nag comme que maa ngi woon ci showbiz bi. dugg ci vidéo yi gën na lancé. Mhm. voilà ma gën a ko ma continuer ko nit ñi peut-être def ko benn à trois fois nit ñi nit bëgg ko. Mhm. ma continuer ko. Mhm. voilà mu boole ma ak ay artistes yu bëri nag. vidéo yi may def mu tax artistes yu bëri xam ma. yu bëri di ma contacter grâce ak vidéo yooyu moo gën a tax ma ma dugg ci showbiz bi. voilà ak sa yenn peut-être fréquentation laa koy woowee tamit. moo gën a tax ma arrêté sama jàng. dugg si milieu anima animation d'accord euh, ban année nga def animation ban année nga def mannequinat. c'était en 2016 2017 ah laa njëkk a def euh, mannequinat mhm. défilé agence Fremont Sénégal def naa fa deux ans voilà nekk si di défilé défilé naa pas mal de scènes di leen remercier ñoom tamit de passage parce que tax nañu ma gën am expérience si dans la vie sociale quoi. Mhm. d'accord euh, gannaaw euh, euh, défilé bi et tout animation fan ak fan nga jaar bébé. waaw bi ma xëy ci sama bébé bi ko bébé laa ko war a wax. <laughs> d'abord damay remercier Khalifa Sall du passage. Mhm. parce que moom mu gën a jàppale. gis na jeune naa bëgg naa li may def mu boolem ma ak waa Dakar TV international. Mhm. moo commencé woon foofu di def ay émissions commencé woon comme skat moom yenn école yu ma jaar ak yenn professeurs yu ma jàppale. waa ma ma ma dugg ci avancé si loolu tam gën ma ubbil ay bunt peut-être. Mhm. foofu laa commencé. voilà ma dem yàlla boole ma ay Pape Cheikh Diallo ñoom tamit nga xamante ni man jàppale ma voilà c'était dur nag au début parce que ñëw nekk xale bëgg ñu jàppale la rek ci trop dur surtout suñu lay xoolee les gens peut-être amul dépense voilà wala duñ la gis peut-être talent bi nga am duñ la ci mën a jàppale ma fekk voilà mais sant yàlla daal. Mhm. et euh, naka nga doon dundee animation bi nga xam ni yaa ngi ko doon def euh, au nga mu bàyyi nga ko léegi naka nga ko dundee woon. bon neexoon na métti woon na parce que ñëpp xam nañ lu nekk ci milieu animation dafa métti. Ah. Euh, surtout que nga nekk xale. j'étais trop petit ma nekk mm-hmm. xale bëgg ko. yàlla joxoon ubbiloon na ma ay buntu sax pour ma commencer comme mais bon peut-être yàlla moo ko moo ko arrêté noonu école ak école bi tëj sax vu que man sama émission si école yi kese la doon concerné mhm. école bi nag ma bindaat beneen projet dem protéger ko voilà pour mën a commencer waat mhm. mhm. ma arrêté euh, émission mais bébé bébé yow euh, sa bi dafa mel ni dañ cee juum waruñu la woon woowee bébé Diagne parce que yow da nga da macha allah réseaux sociaux yi ak euh, gars yi dañ la teel a dañ la teel a wër à l'âge de dix dix sept ans xaw ma seize ans ci nga marié mu defoon boom ci Sénégal réseaux sociaux yi ñëpp di ci wax bébé lan moo la xiiroon ci marié age boobu noonu ak mariage boobu naka la demee. bon xam nga Sénégal lañ nekk. <laughs> <laughs> nekk xale teel am jabar genre du fi du fi du fi délai en fait peut-être fi lañ ko fekk te aada yu. ah ah déet déet déet déet seize ans. mi suñu yaay ak suñu papa yi yàgg dañ dañ dañ sëy dañ doon mariage euh, à l'âge trop trop adolescent mhm. te gis nañ ko ba tey am na surtout si yenn laax yi ñoo ngi koy def ba tey donc man na dama dem parce que man moom xaw ma caaxaan dama dem ba gis li ma bëgg <laughs> voilà je me suis opposé de paal mère bi laa ko muy ree maa ngi dee. nekk mu nekk sama ma ma takk waxtaan sax ko voilà sama kilifa ànd boobu dafa juróon polémique bu bari ci Sénégal parce que ñeneen ñi dañ doon wax ni lii amul du dëgg dañuy wax rek peut-être tournage clip la wala dara bébé ñëwaatal ak ñun bu baax. presque foofu en parce que loolu. mënul mënul mënul mënul nekk ay ay ay ay tournage wala genre yooyu parce que lu nekk si réseaux sociaux yëpp la. gis nañ avant mariage bi déjà tax jàq kese laa dem après ma tànn jour mariage bi voilà y avait pas mal voilà vu que ñun ñëpp samay xarit dañ maa nañu. voilà ñu mari fête kii bi mariage bi dañ ko jàkkaarloo voilà ça s'est bien passé en plus mooy si réseaux sociaux d'accord mais ki ki nga marié loolu il paraît moo la magoon de. sa question la wala question sénégalais non sa sa jabar question man fii lu ma fi wax lépp sénégalais yi ma ko laaj loo man man waxuma dara pour man sinon kon damay toog ñëw laaj la et tout. bon man je trouve que ça n'a pas d'importance je parce que mariage. Mm-hmm. mariage la. d'accord gis nañ fi jigéen ñu sëy ak ay paa gis nañ fi jigéen ñu mhm. sëy ak ñoo xamante ne ñoo leen ñoo leen ñoo leen mag mhm. comme Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa ko mhm. macha allah donc je trouve que du mais man ba léegi tontu woo ma dama ne ki nga marié loon moom moo la magoon waaw wala déedéet question bi loolu la quoi moo la magoon en fait mais genre ay ñoom même génération lañ ko mag mais moo la mag quand même su ma magee ay un an la oh moo la mag nangul rek <laughs> <laughs> bébé ko defati ah, dégg naa nag ndaw si ndeysaan ci xel moomu mu la magee woon fala la jaaree jékki-jékki rek ne la oh là là bébé va faire dodo <laughs> sëy bi divorce ngeen divorcé c'est vrai que da ngeen parce que dégg nañ nit ñi di ko coow depuis lors booy bi fi marie woon ak benn mère mère bi bàyyi na ko divorcé nañ voilà si si c'est là te mu ne nag du teew ñuy nataal da ngeen divorcé wala yéen a ngi sëy ba léegi loolu nag je préfère bañ a dugg si débat boobu bon je préfère bañ ciy parce que genre ay détails la quand même parce que Sénégal. Mhm. mariage divorce ñoo ànd même si non même si je suis divorcé genre du pa je suis pas là. pour les personnes waaye. voilà donc je sais pas Sénégal lañ nekk daal peut-être rumeur yi moo toll foofu ak ku nekk gis-gisam. mais mhm. du sori daal. mais divorcé woo quand même. je waxal rek su fekkee xale yi dañoo war daw ñëw am na ñoo xam ne peut-être madame la ñuy ragal moo tax ñëw ñëw <laughs> am ñoo xamante ne bon dañuy xaar nga libre pour ñu mën a ñëw et tout machin truc waxal wax ñu rek parce que sénégalais dañ la bëgg en fait. ah bon ah. bon. <laughs> Mati ah, rek wax ñu. bon je parce que. déjà ay problème de couple voilà comme vu que fépp la am dans tous les ménages. Mhm. ay problème noonu la fa demee daal affaire voyage la demee et tout. Mhm. xam nga ku nekk xam na sa jabar tey ji surtout kuwee. Mhm. nu muy demee genre problème yi surtout soo nekkee góor fiir comme man. voilà seen peut-être day ay oh là là il est mignon. <laughs> <laughs> ma ci waay wax rek ak yow. <laughs> temps yi boobu laay jël Alima Ndione mooy sama yaay mooy sama mooy sama tata mooy sama lépp lu ma waay wax rek ak yow. <laughs> aja ñëwoon. voilà loolu la fa demee daal. Mhm. donc je trouve pas que mariage peut-être xale laa. Mhm. mooy gën a tax nit ñi di si prêter attention que dafa teel a mariage teel a divorcé on s'attendait à ça voilà voilà peu de trucs là mais sant yàlla alhamdulilah. Mhm. ñoo si jàmm. tu comptes remarier quand. oui heure bii maa ngi bokk foofu ba si <laughs> <laughs> dootoo ko defati de. man célibataire damaa gis ne instant bi dafa commencé dox. maa da ñam bi ñam bee. waaw xam différence bi xam ni bii di joxe xam ni bee di joxe ñaw dootoo ko defati de. <laughs> instant bi kay man. Mm. maa ma rejoindre la si seen camp bon tey euh, ban ban conseil ngay jox jeunes yi nga xamante ne peut-être bëgg nañu teel a marié comme ni nga ko defee woon euh, t'as vécu l'expérience et tout tey ban conseil nga leen di jox. bon. du ma wax kenn que bu mu teel a marié hmm. parce que mariage euh, fulla ak fayda moo la ci dugal te dalay yokk jom hmm. parce que soo amee jabar defe naa yu bëri dalay jom hmm. te ma du ma rëccu ma ko en fait parce que bi ma nekkee bi ma bi ma marié maa ngi woon si jàmm maa ngi woon au calme j'avais pas de problème juste je savais comment gérer en fait mon ménage mais sant yàlla dama leen wax képp ku bëgg mariage sax mën ma dugg mën na si dugg mais na nekk ci ay conditions leer xool bu baax euh, fu ngay dugg ak li la ci dugal voilà avant parce que mariage c'est pas du benn jour du ñaari jour c'est quelque chose éternel la ñëpp ñaan nañ yàlla sooy dugg si mariage bi nekk si éternel donc na nekk lu ñuy saytuwaat bu baax balaa nga ci dugg d'accord euh, bébé may euh, génn un peu ci dugg ci benn euh, affaire boo xamante ni c'est un peu intéressant parce que dina soxal xale jigéen yu bari vu que jigéen ñi dañu la bëgg am na loo leen réserver pour ñoom balaa ma ciy ñëw dama lay laaj tey TikTok nga nekk si nit ñi xam la euh, ñi lay ñi lay ñi lay gis euh, bari bari bari tellement des fois nga am ay euh, commentaires yu positif comme yu négatif tey boo gisee ñu bindal la souvent damay liir man sa sa commentaire kii jigéen la wala góor. Mhm. bon loolu peut-être xam naa c'est grâce à Rasta yi être boobu moo tax. mais est-ce que doom xaw ma na tamit dafa xaw a. waaw parce que just nit ku nekk ak ni ni la ni la yàlla bindee ni la ni nga mel ni ma juddoo j'ai pas j'ai pas j'ai pas demandé à être comme ça j'ai pas demandé à être célèbre j'ai pas mm. demandé à être peut-être un peu beau je sais pas. un mais... peu beau <laughs> man kii dama koo bëgg yow. damay nekk genre peut-être Sénégal lañ nekk en fait. Mm-hmm. commentaire bu négatif fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi. comme li wéykat bi doon naan. suñu papa Thione mhm. euh, Seck. ñoo ngi koy ñaanal suuf oyof ci kawam li doon naan siiw bi jàmm borom. Mhm. forcément ñi muy amee ñi may bëgg noonu laay amee ñi may bañ. Mhm. te man ñaanuma yàlla sax ñëpp ñëpp bëgg ma ndax boobaa du nekk jàmm si man. mais maa ngi sant yàlla te sama papa sama yaay sama famille samay entourage ñoom xam nañ ki ma doon xam nañ comprendre nañ voilà donc c'est normal su ma ñuy bëggee parce que peut-être gis kii dafa rafet. ñi ñoo ngi bëgg parce que dañuy ne góor du rafet ñi ñooy naan góor du genre Sénégal lañ nekk en ku nekk ak comportement bi muy am si si si yow voilà mais on avance rek depuis mm-hmm. boobu ba ñu ngi sant yàlla bu baax lu mais góor dafa war a mignon góor dafa war a rafet macha allah am ay fossette nga nekk prince fossette waaw waaw dëgg du neex euh, prince gis nañ ni tiktokeur wala tiktokeuse yu bari bari dañuy génn àdduna tey souvent euh, ñi nga xamante ne ñoom ne ñoom la ñuy wax mara euh, yi nekk ci internet bi dañ koy xaral di wax maytu leen TikTok sinon desey dina bari des fois boo xëyee gis ñu tàgge benn tiktoker wala tiktokeuse est-ce que doo am envie bàyyi wala nga tiit. musuma xëy lépp bi moo nekkee TikTok ba tey xëy am envie bàyyi parce que Sénégal lañ nekk li ma lay wax sànq ba tey Sénégal lañ nekk. bakkan bu ñam jëlu di nga ñam dee ku jaar ci topp ku bañ nekk ci topp soo waree dee da ngay dee man je loolu yëpp pël mi boobu la ñàkk yàlla la en nit ki mooy siwul nit ki siwul mooy toog si këram génnu nit ñi xamuñu ko su waree dee dafay dee donc je pense pas que réseaux wala que yaa ngi si kii yi nit ñi xam nañ la forcément da ngay dee ñaata nit ñoo si nekk feebar si tane si ñaata nit ñoo si nekk ñu jàppale leen bu ñuy faral tout le temps di wax côté négatif si réseaux sociaux yi dañuy jàpp côté positif am na parce que ñu bëri ñoo ngi def ay dons ci réseaux sociaux yi ñu bëri ñoo ngi xamante ñu bëri ñoo ngi ciy avancé ñu bëri ñoo ngi leen ciy jël ci ay entreprise ndax voilà donc je pense que loolu yëpp ñàkk gëm yàlla la soo gëmee yàlla la loolu yëpp peut-être doo ko def sa bopp. Mm-hmm. ñoo leen ñu euh, ñi gaañ ci tiktokeur ñi gaañ yëpp yàlla xaare leen àjjana te yéexee ñu. Mm-hmm. d'accord ñu gis ay projet Bébé Diagne actuellement nii mu mel ni da ngay waajal lu am solo lu rëy rëy rëy comme ni ma la ko waxee rek lu ma ko maîtriser maitriser yow yaa ma ko gën a xam. bébé lan ngay waajal euh, Sénégalais yi actuellement nii. waaw maa ngi leen di waajal lu rëy nag. man nag ku xam-xam ne Bachir mooy seen papa. ndeysaan damaa bëgg sañ ne. Mhm. comme moom voilà di leen wax nag ñoo ñu waajal euh, ubbi bu mag prêt à porter comme dañuy jaay yére góor. Mhm. yére jigéen. Mm-hmm. voilà ay yére yoo xamante ne voilà macha allah ku fa ñëw bëgg sañse sañse été. Mm-hmm. comme ni ñuy génnee si été bi ñu dugg si décembre bi loo bëgg dina fa am. Mm-hmm. voilà ci loolu laay dox daal parce que man dama bëgg sama bopp mu bëgg sañse moom damay jàppale sama moroom yi. ndeysaan sol yére euh, nga jóge ci euh, euh, mannequinat ah, daw di ubbi benn prêt à boo xamante ne unisexe lay nekk da ngay jaay yére góor comme jigéen. un mannequin nag bu ubbee fu ñu jaay yére kenn du ko laaj lu tax nga def loolu d'accord mais tey boutique bi fan nga ko bëgg a ibbi ak naka nga ko tuddee ak kañ lañ koy ibbi. ko boutique bi déjà tij nañ ko bu bare. Mhm. ñoo nekkoon en construction depuis quelques semaines pare nañu pare nañ décoration yi. pare mhm. yëpp pare na. Mhm. donc Grand Yoff la nekk. Grand Yoff la nekk sama affiche beeg niveau yi yëpp déjà sama numéro de téléphone mooy si. voilà le 6 lay am mooy dimanche prochain le 6 novembre à partir de midi une heure nit ñi mën nañ ñëw ñu passer la journée ensemble mm-hmm. maa ngi ci invité ñëpp ñu ñëw passer la journée ensemble añandoo voilà yendu kafoore découvrir trop de choses il mm-hmm. y aura plein de surprises nag ndax mm-hmm. artistes yu bëri dinañ ñëwaale incha allah donc maa ngi ci invité ñëpp ñu ñëw d'accord nañ mën nañu xam fan la nekk ci Grand Yoff ko ñu xaar yàlla bi ko ñu xaar yàlla bi juste côté monument Grand Yoff rek juste si tali bi soo duggee foofu soo mhm. laajtee sama kër gi lañ la accord léegi euh, boutique bi naka la tudd. Mara Shop. Mara Shop pourquoi nga choisir tuddee ko sa bopp. Hmm, parce que man sama style soo ma xoolee rek da xam ne kii dafa bëgg moom xoolee dèjà da ngay xam ne kii dafa bëgg moom. dina ma ray. <laughs> dafa bëgg moom. Mhm. dafa bëgg sañse soo ma xoolee dèjà sama style loo njëkk xool li ma soxla ngay njëkk a xool. Mhm. wala peut-être sama kanam wala sama reetaan comme voilà. <laughs> <laughs> ma ne Fassé fii naa la ko bàyyil fii de <laughs> voilà. ku ma a gis sama style la ko xool donc xam nañ je suis très intéressé par la voilà. Mhm. donc looloo tax mu gën ko tuddee sama bopp soo nee Mara rek. Mhm. lu ñu njëkk a wax que ku bëgg boppam la ku bëgg sañse la mhm. ku bëgg àdduna la voilà. loolu loolu dina tax mu tuddee sama xale bu am jom xale bu bëgg boppam xale bu am ambition euh, fi mu dooree ba ba fi mu egsi tey macha allah. nekk élève nekk animateur nekk mannequin ba tey suñu boroom def ko un jeune entrepreneur mu ubbi entreprise bu boppam euh, euh, euh, fas yéene nag tour ñakkam fii si biir Sénégal su ko neexoon mu jël vol dem wala mu dugg si gaal yi dem déedéet loolu yëpp ñoru ko Sénégal moo ko ñor avancement dëkkam moo ko ñor waaye tamit bëgg a gën a jege mu am approche bu bu solide ak ay moroomam jeunesse bi ak ak góor comme jigéen Euh, voilà moo tax mu def lu rëy loolu inauguration bi nag Mara Shop mu ngi nekk euh, le 6 incha allah ñun ñëpp fa la yendu ji et c' promis que ni euh, DS Prod daf koy def mm-hmm. en direct. Mm-hmm. waaw man moom sama lépp déjà DS Prod la. <laughs> dëgg du neex yéen lépp dëgg du neex c' est la chaîne leader. voilà c' la chaîne leader. di wax ñëpp ñu suivre ko. Mm-hmm. parce que information boobu voilà lépp luy daw Sénégal actuellement. que la ñuy wax ngeen seetaan DS Prod suivre que man ku ma bëgg a suivre tamit foo foo nga dem mhm. a gis mhm. koy recommander yéen ñu dem mhm. DS Prod abonné wu ci compte yi activé euh, signe de a comme ni nga ko waxee rek nekku rek ci TikTok bi di foo wala di ndax saa su ne dañuy faral di wax ne borom bëtëgu mbagg boo gis rek xel mi grossiste moo ngi ci macha allah li muy toog si biir TikTok bi yëpp mu ngi xool naka lay def ba créer emploi mi ngi xool naka lay xool ba avancer jéem leen ngeen def comme moom loolu conseil yu mati la mm-hmm. un petit conseil pour les tiktokers après nag euh, ñu daal lay bàyyi nga boucler xam mm-hmm. saa ñu joxante rendez-vous ba le 6 gën a yaatal gën a fasal affaire yi bon conseil nag bi ma jox tiktokers yëpp que ce soit góor wala jigéen wala même réseaux sociaux yëpp laay wax mooy que c'est bien beau neex na nga nekk ci réseaux sociaux yi mais il faut que nga réaliser dara parce que euh, ñu bëri tey jii ñu ngi si réseaux sociaux yi xamuñ ne du métier du métier am na ci loo war a a jàpp loo xamante ni nga ko boole ak réseaux sociaux yi da lay gën bi peut-être nit ñi gën la jàppale loolu ñi gën la xam voilà donc maa ne wax ñëpp képp ku ci nekk ci réseau yi c'est bien boo mais nga am ci loo jàpp. Mhm. am liggéey am profession mën ci jàppale sa papa ak sa yaay. Mhm. voilà ak sa famille ndax ñëpp xam nañ ne TikTok fayul Sénégal. man teel a yàlla sax jabar baax na yaa ko wax de. TikTok fayu Sénégal ñëwal mhm. jàpp si dara tam lu am solo day tax ñu gën la naw. Mhm. voilà boo génnee si tey moo xam nga xam mooy comporté li nga xam nooy def. Mhm. voilà mais tey jii soo amul idée da ngay dépendre si TikTok bi wala di dépendre tout temps si ay je pense que loolu amul solo. voilà ñu ut si lu jàpp moo am solo. ay ayca merci beaucoup mu ngi noonu du ñu def rek lu dul bàyyi ko mu tàggatoo gannaaw ba ñu sargalee jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, waa maison de la diaspora comme ni ñu ko baaxoo di defee saa su nekk rek euh, wuyul dafa mel ni dafa bëgg a wax ak yow loo ko bëgg a wax ay mhm. dina amul benn problème dina remercier léegi cum lii moo baax ci manager <laughs> fa tax ayca. <laughs> gannaaw noonu nag dañuy jaajëfal bu baax waa maison de la diaspora ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay partenaires nekk kër gu yees pour Modou Modou yi maanaam kër gu bees tàkk pour Modou Modou yi mu maison de la diaspora bépp Modou Modou boo xamante ne da nekk rek ci diaspora bi lépp loo bëgg a lijjantee ci sa wàllum bopp moo xam këyit mbaa nga am kër bëgg ko tabax wala lépp loo xamante ne rek bëgg nga ko lijjanti fii ci biir réew mi ak biti réew te jot si woo fii boo contacté waa maison de la diaspora ci kattanu yàlla numéro baa ngi noonu ci suuf Euh, di ngeen di ngeen di ngeen mën a saafonte comme saa dinañ leen gën a expliquer mu gën a yaatu ci yéen kon maison de la diaspora mu ngi noonu pour yéen les sénégalais de la diaspora la Aïcha ñu bàyyi la rek nga tàggatoo remercier say. moom maa ngi lay remercier d'abord. merci dalal bi accueil bi ah vraiment yow moom nit baax nga. <laughs> yaa ma gën a baax. <laughs> macha allah maa ngi lay ñaanal yàlla lafal la cat. Mhm. ah musal la si peut-être cat ak nga yeggale ak sa sago. di remercier samay xarit. Mm-hmm. sama ñaari xarit laa am deux jours moom Modou ak Gilbert. Mm-hmm. remercier toute ma famille sama papa surtout ak sama yaay surtout. ndax moom gën a jàpp si tey lay comme li ngeen naan ba ni ñu koy waxee. feccum liir bu neexee day jaa jàpp ca wagg ya. maa ngi sama yaay bu baax a baax. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla ma ko gudd fan ak weer bu fekkee lépp ñu mën ko fay. voilà ñu ko sonal la ci moom bu baax. bëgg njaboot. maa ngi koy bu baax di remercier sama rek mm-hmm. mm-hmm. maa ngi remercier ñëpp ku leen tudd. di leen remercier ak rendez-vous le 6 novembre rendez-vous le novembre merci beaucoup Prince Walid noonu la Prince Al Walid wala Prince Walid <laughs> sama caméraman bu mën a tardé boobu. jërëjëf sama sama ennemi sama xuloowaale ki may bañoo a tudd Pouchini. merci beaucoup et bien des choses à tout le monde jaajëfal très ami ndiay kontaane képp koo xamante ne rek yaa ngi bàyyi xel des Prod la chaîne leader la chaîne qui vous rassure ciao ciao